leen fàtte abonné te bés ci cloche bi ngir lu ñu dugal ngeen mën cee jot incha allah.
اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن مولانا العبد الخديم عليه أكبر رضوان الله تعالى الباقي القديم mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant cheikhna ahmad al xadim alayhi akbar ridwanullahi taala al baaqi al qadim di ñaanal al cheikh muhammadin al muntaqa al xalifa al aam li tariqati al muridiya suñu boroom yàggal ko fi lool mot li mboolem naa li nga xam ne naal na ko liggéeyal seexul xadiim waaye di sant di jaajëfal sunu kilifa cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al kokki mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi di fayit akaabiri saalihiin ñu ngi teew fii tey ci turu fayit akaabiri saalihiin waaye ci turu. kuréel gi nga xam ne moo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci biir mbooloo moomu di muntadal fikril islaami ngir am ay taxaw seetlu ci waxtaan wi nga xam ne Cheikh Mouhamadou ni Moustapha amaloon na ko jamono yi ñu génn ci werdu wi gannaaw ba nga xamee ne amal na ko te ñu bari ci mbooloo mi xëy na déggin ba nga xam ne jotoon nañ ko ci am wuute lool ak li nga xam ne ñun moom lañ déggee ci waxtaan woo wële mbooloo mi di muntadal fikri islaam yi daal di daje dajale borom xam-xam yi nekk ci biiram ñu jël waxtaan woowa jàngat ko def ci taxaw seetlu waaye tënk poñ yi ëpp solo ci la nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Moustapha doon wax ci waxtaan woo wële bi nga xamee ne tënk nañ ko nag ngir war koo jàllale ci mbooloo mi dina yàlla rek bala ñu ciy dugg ñu xam kan mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al Kokki Cheikh Mouhamadul Moustapha ku ko xam xam ne nit koo xamante ni boroomi gëm-gëm la di boroomi principe waaye dundam géppit da koo jagleel liggéeyal Cheikhna Ahmadul Xadim alayhi akbaru ridwanullahi taala al baaqi al qadim ci tool bi nga xam ne mooy yaatal jàngaleem Serigne Touba. waaye amal ay liggéey yu ama am solo ci ndaw ñi ci yeesal mboor mi waaye ci dundal li nga xam ne mooy dëgg-dëggi maanaam ndonal Cheikhna Ahmad al Xadim di ci def ay liggéey yu ama am solo waaye loolu lépp nag mu sukkandiku ci ay jumtukaay yoo xamante ne jumtukaay xam-xam lay doon yoo xamante ni day dëppoo ak li nga xam ne mooy principe yi nga xam ne muy fondamental la ci yoon wi di yoonu murit kon loolu lu ñu xam ci Cheikh Mouhamadou Moustapha la naka noonu lañ xamee ne yitte mësul nekk ci jam kenn ci kàngami murit yoon wi wala ñi nga xam ne ñooy kilifa yu mag yi li ci nekk kay mooy waxtu wu nekk da leen di waxtaane di dellu ci seeni mbind moo xam ci téere yi muy taalif wala ay mbindam moo xam ci waxtaanam waaye it waxtu wu nekk da leen di jéem a roy ci seen i dundin waaye di jéem a jël seenu dundin di ko jëmbat ci ñi nga xam ne ñooy taalibe yi kon loolu doon lu ama amam solo moo tax buñ bëggee amal jataay bi dina am solo lool ñu tënk waxtaan wa ci ay poñ daal di koy jàngat ci anam goo xamante ni gu mucc ayib lay doon ñu ngi feggoog suñu mbokk al oustaz Maguette Kandji incha allah dañ koy jébbal kàddu gi ngir mu ñëw ci poñ yooyu nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Nin Moustapha daal di amaloon ci waxtaan woo nga xam ne defal na ko ci werdul ma werdu yi nga xam ne mooy werdul Serigne Touba wi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أعاذني الله منه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن الخبد عبد الخديم رضا لا سخط بعد mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di sof suñu kàddu fi ko suñ Babacar daaneele muy ñëw ñëwoon jéem a indi ay leeral ci waxtaan woowu nga xam ni Cheikh Moustapha Diop Alkoki defoon na ko te jëmale ko ci alwirdul maxuus mu indi woon ay wax ginnaaw ba te li ñu jàppoon ni moo ko waral mooy ñu baree bari fa mu doon waxe lañu déggul léegi nag muntadal fikril islaam yi nga xam ni ab cellule la ci faydu akabiri saalihin di yëngu ci wàllu xam-xam ñëwoon tey ngir indi ay leeral ci waxtaan wu wóole waaye di ko tàmbalee rek ci wax ni Cheikh Moustapha Diop Alkoki ku ko xam xam ni nit la koo xam ne day taxaw ci ay principe mbooleem ay yëngoom ci xam-xam ci lu mu mën a doon ci ay mabaadi ci ay principe la koy tënk waaye day dox ci wax waxtu wu ne ci liggéeyal sëriñ Tuubaa xadim xadimu rasul alayhi akbaru ridwanillahi taala al baaxil xadim ci di yeesal di dundal ndonoom li waaye di ko aar di ko wattu noonu nag bu koy aare di ko ni wattoo da koy sukkandiku ci njëfandikaay yi xam-xam yi nga xam ne xam nañ ko ci wàllu xam-xam waaye xam nañ ko itam ci yoonu murit nga xam ni mooy lépp lu muri murit di def da koy teg ci xam-xam waaye teg ko ci ay teggin jëmm jooju nga xam ne mooy Cheikh Moustapha Diop Alkoki ku ko xam-xam ni mbiram doonul jéem a tuutal wala jéem a xeeb wala jéem a wàcc kenn ci nga xam ni ñooy mag ñooñu tedd ñooñu nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi nga xam ni ku yàgg a topp ay waxtaanam di nga dégg ngëneel yu bari yi nga xam ne dina koy wax ci ñoom bàyyiwu ci kenn nag ñooñu nga xam ni ci ñoom lañu jote mbooleem li nga xam ni moom la ñu jot ci sëriñ bi radiyallahu taala anhu kon ñu mel noonu moom Cheikh Moustapha du sikki sàkka mukk ci ñoom du du leen wàññi mukk du leen tuutal li yitteem nag mooy day xool xam-xam fu xam-xam teg tànkam mu teg ko fa moo tax day aaje lépp mu di ko delloo ci cosaan yi waaye sukkandikoo ko ci ab méthode boo xam ne xamee xamee nañ ko ko mooy li ñuy tudde ak taxqiq al manhaj yi muy li ñuy wax ci tubaab vérification méthodique méthode boobu nag képp ku ciy sukkandiku xam nga ni da ngay jàngat xam-xam waaye teg ko ci cosaan ya waxtaan woowule nga xam ni moo indi woon wax ji ginnaaw bi mu amee ba pare ku ko déglu te jàngat ko di nga xam ni li nga xam ni mooy iskaliya bi nga xam ni ci la waxtaan wi lalu mooy dafa bëggoon moom Cheikh Moustapha delloo cosaan yépp lu ci ne mu delloo ko ci cosaanam mooy li ñu tudde at tasil al ilmi maanaam lu ci ne rek mu fexe ba delloo ko ci cosaan la waaye nag jaare ko ci dellu ci nusuus yi ci koppi yi nga xam ni moom la ñu jot téye ko ci suñu loxo te mu bàyyi ko ci Cheikhuna Ahmadul Xadim kaana lahu bi karamihil baaxil xadim waaye nag mu sukkandikoo mën xëj boobu nga xam ne moom lañ tudd léegi mooy li ñuy tuddee vérification méthodique loolu moo waraloon questionnement yi nga xam ne doon na ko def ci biir waxtaan wi mu di ko def waaye jubluwu ci woon sikki sàkka ci kenn ci ñi nga xam ne ñooy asalafu saalih kenn ci ñi nga xam ne mooy mag ñi toppoon sëriñ bi radiyallahu taala moom Cheikh Moustapha nag ni mu gisee tajdiid mooy yeesal mooy lenn lu ne ñu delloo ko ci cosaanam gëstu booy def da nga koy delloo ci cosaan li cosaan yoon wi nag ñëpp xam nañ ko mooy mbind yi wér te ñu askan ko askan lay ko Seexuna Ahmadul Xadim radwanullahi taala alayhi suñu jógee ci loolu ba xool li nga xam ne mooy iskaliye bi nga xam ne ci la waxtaan wi tënku woon dinañ ci mën a jàppe tomb yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a wax bi ci njëkk mooy Cheikh Moustapha Diop Alkoki dafa saxal ci bu wér a wér a wér ci biir waxtaanam woowu wax ni mbooleem nu sax mbooleem copie yi nga xam ni moom lañ jot ñu mu gën a siiwe ci alxafiif alkaamil ak al wirdul xaatim te ñu cosaan loo ko ci mbindi mag ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi nee na yépp moom dafa jàpp ni ay awraad la yoo xam ni maxuusatun min allahi bi waasiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon waxtaan wi ko topp ni nga xam ne sëñ Moustapha saxal na loolu ci bu wér biir waxtaan wi Cheikh Moustapha mi ngi indi di leeral différence bi nga xam ne moo nekk ci diggante alwirdul lazim ak alxisb mu wax ni alwirdul lazim mooy wérde wi nga xam ne mooy lëkkale diggante kiy woote ak ki muy woo mooy ruuxu daawaam loolu nag képp ko xam tasawuf boo delloo ci aqtaab yu magee Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Cheikh Ahmad Tijaani ak ñeneen ñi du ñoom di nga gis loolu mu gis ni nag moom wérdul laazim ci alxarakal muridiya daa bokk ci mbir yi nga xam ni wékku gi murid bi di wékku ci sëriñ bi loolu da cee bokk maanaam wérdul laazim day daa bokk ci li nga xam ne dina tax a nekk murit waaye nag doonu ca charte boo xam ne ku ko jëlul doonoo ko ndax murid ya moom dafa jàpp ne ab xaraka la kokki alkokki li mu jàpp daf ne dafa jàpp ne moom murid ya xaraka suufiya tajdidiya la jaamia loolu moo waral wirdu laazimam mu jàpp ni mooy alwirdul xaatim mu jàpp ni nag alwirdu ci xaraka chartu kamal la ci waaye du sartu sex sexa maanaam werd bi boo ko jëlee bokk nga ci yoon wi boo ko jëlutin mën ngaa bokk ci yoon wi ndax xaraka la mu ni nag yeneen nu sax yi nga xam ni mooy yeneen copie mboolem yeneen copie yi nga xam ne ameen am nañ ko mooy xafiif bi mooy kaamil bi teñ mooloon ko ca jamonoy sëriñ ba sëriñ dañ caa fekk tur woo xam ni ma nga ca biir mooy dañ koo tudde alxisbu rafi alladi huwa min an niiraani xirzun mani wali duxulul jinaani aadamu shafia looloo tax ñu jàpp ni tur woowee ñu fekk ca móol ba woowa lañ ko mën a tudde yeneen yi nga xam ne nag gisuñu ñu àndaale wut ak tur lu mel ni kaamil bi ak nu sax yeni mel kon dañ koy rafaatale ci móol bii nga xam ne ci la xafif bi ñëw moom nag bi mu sukkandikoo ci xam-xam ci gëstu yi mu def te sukkandiku ko ci yoon wi nga xam ne ci lay gëstoo te ñu wax ko ci tàmbali bi mooy moom dafa jàpp ni alwirdul xaatim mooy alwirdul laazim lil xarakatil muridiya donte ni nag dàqul ya ca des loolu nag nee na buñ ko bëggee xam laaj boobu nga xam ni moom la tontu léegi li tax ñu xam ko mooy dañoo delluwaat ci mbindi sëriñ bi boo laajee nee na li gën a wér nga xam ni ci nga mën a dellu ngir mën a tontu mooy mbindi borom yëf yi te nee na fekk na ci mbindam sëriñ bi ci nusxa boobu nga xam ne mi ngi ci cheikh Moustapha Bachir ci maktabaam ibnu cheikh Madul Bachir ibnu cheikh Madul Xadim ridwanul alayhi ridwanullahi taala al baaxil xadim mu rotal ca ci boppam moom sëriñ bi ne haada huwa alwirdul xaatim almaxuuzu min allahi taala bi rasulil xaatim nee na la ca des lépp nag ci ay nusax moo xam ay ay copie nga xam ne jot nañ ko jote wuñu ko directement ci sëriñ bi waaye am na ay wasaait dañ koo bindaat ginnaawam doon même buñ ci amoon sax ay mbind sëriñ bi ci loxo boppam gisuñu ci benn boo xam ne sëriñ bi tudde tudde na ko wér la waaye yiñ ci jot yépp sëriñ bi dina indi dinañ indi wér wi waaye amu ci benn boo xam ne am na aw tur benn bi ci am aw tur mooy alwerdul xaatimu almaxuus min allahi taala bi rasulil xaatim te sëriñ bee ko tuddeel boppam léegi nag nee na données yi yëpp buñ ko dajalee nga xam ne buñ ko jàngatee kon dañuy wér xam ni alwirdul xaatim mooy alwirdul laazim lil xarakal muridiya mu wax nag ni baatub al laazim fii ci wax ji jublu ci al li ñuy tudde almaanal qanuni lan mooy almaanal qanuni mooy wane ni képp koo xam ne jëloo ko nekkoo am murit ndax ci ab xaraka lay wax boobu ba léegi ñetteelu tomb bi sëriñ Moustapha dafa ubbi ab buntu ngir nit ñi mën a gëstu ndax dafa jàpp ni dañoo ubbi buntu ab xam-xam te lii ñëw ci kanam nit ñaa ngi jàng Cheikh Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara wax na ci xitaab bu am solo boo xam ni woo na ci murid yépp ci jàng ubbi ay daara ubbi ay université wax ni daa bëgg Touba mel ni Bagdad léegi loola buñ ca yeggee am na ay point yoo xam ni faw gëstukat yi dinañ dinañ fëgg buntu yooya moom nag mu fas ci- fas leen ci yéene jiitu fëggu ko ñu jublu ci leeral ko bala ñoo yegg ci loolu moo tax mu ubbi buntam niqaas buntab waxtaan boo xam ne dañuy gëstu waaye teg ko ci mawduiya mawduiya nag moom Cheikh Moustapha li mu ci jublu mooy nit kiy gëstu day génne boppam ci li muy gëstu mooy moom même bu ko arrangé wul sax du tee mu mu indi li nga xam ne moom la xam-xam indi mooy mën xaj boobu nga xam ne moom la taxawal ñeenteelu tomb bi Cheikh Moustapha leeral ni leeral na ni war nañu g- euh, sëgg ci gëstu ci xool waaye teg ko ci mawduiya ci settantal ñu seex mu mu- mu ñaan seex Mamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara mu daal di wut ay commission yoo xam ni dañ leen di chargé ñu jéem a gëstu mbindam Serigne Touba radiyallahu anhu fexe ba woo mbooleem ñi nga xam ni am nañu dara ci mbindam sëriñ bi moo xam ay kër ci kër yi kër ay seex lañ wala ay murid lañ wala kuñ mën a doon ñu fexe ba dajale ko bu ko defee gëstukat yooyu sëgg ca mbind moomee gëstu ko ñu daal di koy wutal delluwaay wutal ko ay cëslaay wutal ko cosaan ba nga xam ni bu ëllëgee képp kuy waxati ci sëriñ bi dina doon loo xam ni dinañ ci mën a teg loxo. ci ci mujj gi ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm Maulana Cheikh Mamadul Muntaxa xafisahullah wa raa ci yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko xam-xam ci yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko saytu ndonol Cheikhuna Ahmadul Xadim radiallahu anhu saytu mbindam saytu leen fi bàyyi yëpp di ko sant bu baax di ko ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala mu guddalu fanam ba mbooleem naal yi nga xam ne naal na ko mu yeggale ko yëpp ci su- ci ci ci suñu kanam waaye di sant ah, Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al kokki mi nga xam ni moo ubbi buntub xam-xam bii nga xam ni ci fan yi murit yu baree baree bari jariñu nañ ci ndax da ko dañ koo jàppe woon débat xam-xam boo xam ni luñ ci gën a xuus rek xam-xam di gën a génn kon ñu mel ni moom ñi ngi leen di sant bu baax a baax di sant waa faydu akabari saalihin di sant taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah
bu leen fàtte abonné te bés ci cloche bi ngir lu ñu dugal ngeen mën cee jot incha allah